ngir seetal seeni loxo jëfandiku leen gel main Valda Valda moo leen di may Sud Nutrition salaamaaleykum mbokk déglukat yi docteur Bintou Cheikh Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Rosalie. chronique numéro 333 docteur tey euh, mooy ñetteelu édition bi nga xam ne da ngay dellu si ci fausse croyance maanaam yenn gëm-gëm yi nga xam ne taxawul ci wàllu alimentation. waaw te dama ci dellusi parce que dafa am solo suñu auditeurs yi euh, ak ñëpp mën a xam lan moo wér ak lan moo wérul ci information yu bëree bëri yi ñuy gis ci wàllu lekk ak lekkin euh, lu tax loolu am solo c'est que lépp loo xamante ne wérul ci wàllu wàllu lekk mën na indi nit ki ay jeexital ci euh, sellaayu lekkam ak ci euh, wérgu yaramam et puis aussi am na yenn gëm-gëm yi yoo xam ne finalement dañuy dem ba euh, nit ki koy gëm ki ko di ko jëfandikoo sax dafay bàyyi li nga xamante ne moo am solo ci suñu la wàllu lekk yi li nga xam ne science moom la ñu tegtal dem di ittewoo yeneen yoo xamante ne amul benn solo te loolu euh, du li gën. waaw donc dina énoncé juróomi gëm-gëm yoo xam ne tey di leen présenté te it wax ñu lan moo tax du ay gëm yoo xam ne war nañ ci bàyyi xel. Euh, waaw loolu moom euh, nañ nañ dina ci sawar torop. waaw ah, li may tàmbalee mooy gëm-gëm bi njëkk maanaam légum yi bu ñu leen toggee ci suñu soos yi comme ni ñuy toggee suñu plat sénégalais yi dañuy ñàkk seeni ay ferñeent. waaw loolu évidemment du dëgg ndaxte ñetti ferñeent la ñu xam yoo xamante ne. bu ñu bu togg bi yàggee te togg bi tàng loolu yooyu feneen mën nañu wàññeeku bu baax a baax ci ñam bi ci légumes yi wala sax ñu ñu jeex ci légumes yi muy vitamine C muy vitamine B1 ak vitamine B9 te euh, comme nim mu ko waxee euh, seen wàññeeku boobu ñuy wàññeeku ci légume bi mi ngi dépendre ci tàngaay yu togg bi ak ci diir bi ñu toggee togg bi maanaam temps de cuisson bi euh, waaye li ñu war a xam mooy ne am na ñeneen ferñeent yu baree bari yoo xamante ne ñu ngi ci légumes yi yoo xam ne euh, togg bi du leen def dara te ñun suñu yaram dafa so dañu soxla ferñeent loolu yu lu weesu ferñeent yooyu am na ay gàncax ci légumes yoo xamante ne suñu yaram daf ko soxla également te même ñetti euh, vitamines yooyu ma wax nga xamante ne togg bi mën na leen wàññi yooyu mën nañ leen jot ci yeneen lekk ci yeneen ñam yoo xamante ne euh, dañ koy jëfandikoo donc légumes yi lu am solo la te ñun ñëpp dañ ko war a jëfandikoo ndax ne ci liy indi euh, wérgu yaram ci la bokk. waaw ñaareelu gëm-gëm bi mooy reer maanaam euh, repas du soir war nañu ko lekk au plus tard 19 heures. waaw loolu évidemment dañ def du dëgg li ñu tegtal daal mooy ne nit ki na fexe ba. buy reer mu euh, reer ñaari waxtu balaa muy tëddi euh, te loolu ngir ñoŋal euh, digestion bi la maanaam ñam ñi mën a rees ñu war a reesee d'ailleurs sax man li ma gis mooy ñi ñi nga xam ne dañuy faral di teel a reer di reer ay ay six heures ak ay sept ñooñu sax dañuy gaaw a xiif balaa ñuy tëddi dañuy xiif wala sax am na ci ñoo xam ne euh, xiif bi moo leen di yee ci diggu guddi gi ndaxte dañu lekk dafa teel torop di wér mooy nit ki sàmm li muy def ci palaatam wala ci boolam di ko reeree maanaam qualité boobu lim ci war a def loolu li nga xam ne nii ñuul ba am na légume ak yeneen yi may tegtal faral di tegtal loolu moo gën a am solo nekk di euh, di xalaat ban heure laa war a reer. ñetteelu gëm-gëm bi mooy ku amee tension buy yéeg lu muy lekk guddi maanaam lu muy reeree kenn waru ci def xorom. waaw loolu tam euh, lu di dëgg. Euh, te may wax rek sama mbokk médecin yi bu fekkee ni am na ci ñoo xam ne ñu ngi euh, faral di wax lii seen maladie di ko tegtal seen maladie bi lay war doon na rafet ñu bàyyi ko euh, ndaxte li nga xam ne loolu la science wax dafa ne ki ki hypertendu ki tension am di yéeg ba mu ñu koy jox ay garab comme ñëpp d'ailleurs kooku dafa war a fexe ba wàññi xorom ci ñamam journée bi yëpp te loolu waxtaan naa ci ay yoon yoon lu ñuy fexe ba suñu lekkim xorom lekkinu xorom wàññeeku mooy ñu bàyyi bouillon cube yi ñuy jëfandikoo euh, bàyyi euh, bu ñuy lekk di dolli ay arôme ak ay xorom ci li ñuy lekk te ñu faratal di lekk euh, li nga xam ne mooy ñam yu yu frais yi yu sell yi yu nga xam ne mooy meññ wala yu ñuy dem di ko di ko wittak yooyu Euh, moo gën ni ñuy wax les aliments transformés wala les aliments industriels ndaxte yooyu dañu bari xorom. ñetteelu gëm-gëm bi mu ngi aju ci banaana ndax ñu bari dañu jàpp ne dafay indi seere maanaam constipation. donc loolu tam du dëgg ndaxte euh, banaan sax euh, li ñu jàpp li ñu gis ci banaan mooy ne. banaan dafa am ay co benn ay gàncax yu ci nekk combinaison gàncax parce que gàncax yi dañuy wute mais gàncax yi nekk ci banaan ñoom sax par dañuy gën a ñoŋal suñu digestion Euh, ba nga xamante ne nit ki du du seere du am constipation euh, léegi nag am na ay nit dëgg la yoo xamante ne bu ñu lekkee banaana dañuy gis ne banaana bi daf leen di indil ay ay jafe-jafe maanaam dinañu am xëy na ay gaz wala ñu am biir buy metti ñooñu bu ñu xasee ba gis loolu seetlu loolu ci seen bopp nañu bàyyi banaan euh, waaye ñi nga xamante ne ñoom Euh, amuñu benn euh, jafe-jafe bu ñu lekkee banaan bu ñu bàyyi banaan di xalaat ne banaan bi daf leen di seere ndaxte loolu wérul gëm-gëm bu mujj bi mooy ne que fruit dañu war di ko lekk laataa suñu repas maanaam laataa ñoo añ wala reer lu ko moy dañuy fermenté ci estomac bi te seeni ay ferñeent dañuy wàññeeku waaw loolu tam du dëgg loo xam ne gëm-gëm la boo xam ne dañ koy faral di dégg te man dañ ma koy laaj lu baree bari euh, mais li ñu war a xam mooy ne fermentation mooy loo xam mooy comme ku doon wayal soow xam nga booy wala wayal soow da koy dangay jël ay ay doom ay ay microbe ñu def ko ci meew mi mu wayal soow bi muy fermentation donc ku dégg fermentation rek il faut que ay microbe nekk foofu pour que fermentation mën a nekk waaye ku gis estomac ak li nekk ci estomac estomac bi acide bu baree bari moo ci nekk ci lii mën a fexe ba ñu digérer si li ñuy nekk loolu ci la bokk acide bu baree ci nekk te amul bactérie yu néew a néew ñoo mën a dund ci acide boobu donc ñu jàpp rek ni amul dara luy fermenté ci biir as ci biir estomac bi euh, donc li may wax ne donc euh, fruits mën na nit ki mën na ko lekk saa su ko neexee euh, lii mooy benn exemple benn misaal ci gëm-gëm boo xam ne wérul boo xam ne nit ki finalement daf koy day daf koy yóbbu feneen te ba mu tax mu fàtte li nga xam ne moo am solo ndaxte li am solo ci wàllu fruits mooy doomu aadama ngir wérgu yaram war na fexe ba lu ci gën néew mu lekk ñetti fii ci bés bi te loolu euh, ñu sénégalais yu bari duñ ko matal. jërëjëf docteur ci leeral yi nga fàttali suñu page Facebook. Euh, mooy suñu nutrition ñu leen di ñaax rek ngeen ñëw laaj ñu seen i laaj ki wax ñu ay thèmes yoo leen bëgg ñu waxtaanee. i xam leen ni am na ay chronique vidéo ak audio yu ñu posté ci page may gërëm Val d'Afrique di la jaajëfal docteur Bintou Cheikh Seck jërëjëf Rosalie ngir seetal seeni loxo jëfandiku leen gel main Valda moo leen doon may Sud Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val vous offre Sud

je vais énoncer les cinq croyances que vous nous présentez aujourd'hui et vous nous direz pourquoi elles sont fausses. La première fausse croyance est que lorsque les légumes sont bouillis dans les sauces telles qu'ils le sont dans nos sénégalais, ils perdent toute leur valeur nutritive. Eh bien, évidemment, c'est faux, parce c'est une fausse croyance. Il n'y a que trois vitamines, la vitamine C, la vitamine B1 et la vitamine B9, qui sont sensibles à la euh, il y a des dizaines d'autres nutriments qui sont conservés malgré la cuisson dans les légumes. Et même si les trois vitamines que j'ai citées sont complètement détruites, ce qui n'est pas le cas par la cuisson, on peut les obtenir largement dans d'autres aliments. Les légumes sont essentiels à une bonne, euh, alimentation. Qu'ils soient bouillis ou pas, il faut les manger. la deuxième croyance, il vaut mieux manger le repas du soir, c'est-à-dire le dîner, au plus tard à 19h. Alors, évidemment, c'est faux. Ce qui est conseillé est de manger deux heures avant l'heure du coucher pour une meilleure digestion. Euh, d'ailleurs, quand on mange trop tôt, euh, dans la soirée, on risque d'avoir faim avant d'aller se coucher ou d'être réveillé par la faim. il vaut mieux se soucier de la qualité du repas que de l'heure du repas. La troisième fausse croyance, une personne qui souffre d'hypertension artérielle ne doit pas manger de sel ajouté au dîner. Très faux. Alors, et s'il y a encore des médecins qui prescrivent ça à leurs malades, ils devraient arrêter. Euh, la prescription qui est validée par la science, c'est qu'un hypertendu, comme tout le monde d'ailleurs, doit manger peu salé tout au long de la journée. Donc, on a, on a parlé souvent comment manger moins salé. Euh, il faut pas éviter d'ajouter du bouillon cube, il faut éviter de ressaler au moment de manger, il faut privilégier les aliments frais plutôt que les aliments industriels, ainsi de suite, mais on n'élimine pas le sel ajouté dans le repas du soir. La quatrième fausse croyance, la banane contribue à réguler le transit. Euh, en revanche, il y a des personnes qui sont intolérantes à la banane, comme d'autres sont intolérantes euh, à d'autres aliments, et ont des quand elles mangent de la banane. Euh, ces personnes-là devraient éviter de manger la banane, mais pas les autres. La cinquième fausse croyance, il faut manger les fruits avant les repas et non pas après, sinon ils fermentent dans l'estomac et leur valeur nutritive est réduite. Évidemment, c'est a dans l'estomac qui pourrait faire monter que ce soit. Je trouve qu'en fait, cette croyance est le parfait exemple d'une fausse croyance qui empêche de se focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel ici, c'est d'enrichir son alimentation d'au moins trois fruits par jour, ce qui n'est pas le cas de la plupart des Sénégalais. Merci pour ces éclaircissements, docteur. Rappelez-nous la page Facebook. C'est Sud Nutrition. Venez des thèmes et sachez qu'il y a des chroniques euh, Le gel main Valda, efficace sur des microbes. Val vous a offert Sud